bismillahi irrahmani irrahim an ibni abbasin radiyallahu anhuma qaal jëlee nañ ci suñ sang sayduna abdulahi doomi sayduna abbas yal na yàlla boole leen gërëm mu ne kuntu xalfa nabiyi sallallahu alayhi wasallama yowman ab bés maa ngi waroon ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ci gëlëmam mu war ci kanam ma war ci gannaaw fa qaala mu ne yaa gulaam yow xalel ixfadillaha yaxfadk wattul yàlla mu wattu la maanaam bàyyil xel yàlla foo toll moom it dana la protéger ba kenn du la mënal dara dara du la mënal dara ixfad illaha tajidhu tujahaka wattul yàlla daa ko fekk sa kanam wa ida saalta fasalillaha waaw tujaaka uh, sa wàll bàyyil xel yàlla daa fekk yàlla sa allah will be by your side ida sa'alta ndem nam mu nga laaj ñaanal yàlla daal ndem nam mu nga laaj fas'alillaha laajal yàlla kot ida sta'anta soo bëggee sàkku ndimbal fasta'in billah na nga dimbani ko yàlla kot rawaahu tirmidiyu wa qaala xasanun saxiixun tirmidiyu moo solo xadis ji rafet la ju wér xadis ji nag gën naa gudd ji cig dana ca yokk waclam anna al law ijtamacat an yanfacuuka bi lam yanfacuuka illaa bi cheyin qad katabahu llahu laka xamal ne xeet wi yépp suñ dajee woon bëgg laa jëriñ ci dara loo xam ne euh, bëgg laa jëriñ ci dara duñ la mën a jëriñ mukk lu dul ci loo xam ne sama boroom dogal na ko ñeel la àdduna yépp nag suñ tasee woon bëgg laa jëriñ duñ la mën a jëriñ mukk lu dul ci loo xam ne yàlla dogal na ko ñeel la walaw ijtamau ala an yadurruka bi shay suñu dajee woon it bëgg laa lor ci dara lam yadurruka duñ la mën a lor illa bi cheyin qad katabahu llahu lak illa bi cheyin qad katabahu llahu aleyka lu ci loo xam ne yàlla dogal na ko waral rufiati l aqlaamu nañ xalima yi wa jëfati suxufu téere yi fendi nañu waaw nañu kenn mënta amal ci nguurug yàlla gi lu neexut yàlla kon nag bul xemem daraay kenn ba tax nga juyoog sa borom bul ragal lorug kenn ba tax nga juyoog sa borom ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci qabdatullahi subhanahu wa taala yal nañu yàlla may yàlla te may ñu dégg yàlla yaa rabbi sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al